nañ ma dóor bal ma dee barki Serigne Touba Sonko jaral na ma dóor ma bal ma dee. billaahi wal kitaabi dóor leen ma bal ma dee man Seydina Mohamed man Pape Touré dóor leen ma bal ma dee. bu dee yéen police yi gendarme Sénégal dóor leen ma bal ma dee. man loolu rek laay demaat soxlu Sonko. barki Serigne Touba lan moo la métti tey ba nga ñëw lu ma fi indi. lan moo la andi lan mooy buntu kër jaamut fa ngeen aaye ñëpp bank ba buntu kër jaamut amu leen droit de fi ñun ñëpp ñoo yem ci réew mi liggéey moo ñu ñor dara suñ ndey ak suñ bàyyi tabaski jot ñëpp di rayante ngeen barre circulation taxi bi mu dugg deux heures de temps diggante Colobane fii loolu rafetul bu dee policiers yi dëgg mu ngi ci yéen dóor leen ma bal barki maam Cheikh Rahim Fall yéen naa gën a yées ñuy topp Sonko kon man bàyyi sama atelier tëj sama atelier yor ñawi jàmbur yëpp ku ma yaakaar tey ren